asalaamualeykum waa Sénégal asalaamualeykum waa adduna seen émission Jojo et ses marabouts ñëwati na ñu fas yéene ko def rek comme nuñ ko daan defee waaye balaa loolu may nuyoo di ziyaar di nuyu kilifa diina yu nekk Sénégal yépp sama waxu démb mooy sama waxu tey yàlla leen fi yàlla bàyyi ba ci kanam yéen kilifa diina yi ndax nag réew mii bu wéeruwul woon ci yéen dina ñaw lool Sénégal réewum jàmm réew mu teraanga réew mu sutura réew diine tàllal nañ leen suñu loxo di sàkku ñaan ngeen ñaanal réew mi di nuyu waa diaspora bi nga xam ne dañuy bëggee émission bi di ma woo guddi ak bëccëg suba ak ngoon di ma féliciter di ma encourager di ma fortifier di ma dolli jom may sàkku ñaan ci yéen rek soxlaw ma lenn lu wér gu yaram xel mi sell ma koy mën di nàmm continuer di leen bégal ndax yéen laay jaam ah Jojo et ses marabouts yéen ko tax a jóg lu leer ñu gën a leeral lu lëndëm ñu leeral ko ba mu leer naññ lii mooy objectif émission bi ndax nag ku ne xam ne ne l'Afrique a ses ku ne xam na ni l'Afrique a ses secrets le Sénégal a ses marabouts mais Jojo a ses ma am gan gu mag gan goo xam ni ndeysaan mën naa ne at yi néew na lool ci baatin ci zahir waaye cey ci baatin gan goo xam ni xëy na ku miinul jotaayam doo jàng nekkinam ma xam ci moom xam-xam xam ci moom dëggu xam ci moom ngor xam ci moom diine xam ci moom yaru xam ci moom bëgg xaadim rasul di sëriñ Touba kooku mooy le disciple du prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nekk taalibeem tey muy sëriñ daam sekk mu sëriñ Touba di boroom jinne yi sëriñ daam jërëjëf ci ñëw gi nga ñëw sama kër ah man day gërëm naa ndax nag ku ne xam na ne sa jot yombul nga xat lool sëriñ daam mën naa ne woo naa la weer mënumaa fexe ba jot la ngir nga ñëw fii ndax nag sàkkuwuma nga ñëw fii ñin ñee ma doon ñaan ngir nga ñëw sama émission bii te man ñin ñoom ñoom laay jaamu moo tax ma topp ci di la woo guddeeg bëccëg suba ak ngoon ba keroog ba ma la jotee lan nga ma wax Jojo yow day askan wi nga fi nekkal kon boo ma wooyee sa émission bi dinaa ñëw dalal ak jàmm sekk te nga nuyoo. ausu billahi bismillahi rahmani rahim laa hawla wala quwata illa billahi alil asim daara ganta màgg mbirum sun borom mm. subhanahu wa taala mm-hmm. ñu ngi ñaan tamit waxu dinel yow ma maqaamaati rajal bila tasalsulin wa basiri bin nijaal ñu ngi ñaan sun borom yokk leer yi tamit. amiin waa barsàq yépp amiin yaa rabbi ay ñaan nag dañ leen di ñaanal bu nit di ubbeeti mm-hmm. émission mm-hmm. wala nit di ubbi dara mm-hmm. na ñaanal way dawle yi dañ koo soxla lool man na xam naa ci dara dëgg la déw ma ne leen na ngeen def waaye xam naa ci dara moo tax bu nit di ubbeeti émission na ñaanal way dawle yi ba noppi soo ko ñaanal kilifa yi dund ndax kilifa yi ñoom ku ci sëlmal ku ci julli ba sëlmal day ñaanal way daw li dëgg la ndax yàgg-yàgg fu nga jëm loola ndeysaan kon nañ leen bàyyi xel mhm. nañ leen di bàyyi xel bu baax a baax di ñaanal nag bu baax kaw nu na biyu mhm. sëñ Muntaxa Basiir nga xam ne mooy suñu nday ndeysaan mooy suñu baay nun mel mooma mooy suñu yaakaar bi ni gone gu ndaw la ñu teg loxo mhm. bi mu ñu tegee loxo am la mu def ci ñun ba awma ci sik sàkka xam ne dina sikk sàkk dara mhm. waaye man damaa amul sikk sàkk ne kaw nu na biyu sëñ Mountakha Bassirou am na loom def ci ma mhm. ñàkk xam nag moo waral lu bëree bëri dëgg la di ñaanal bu baax tamit euh, euh, sëriñ Soda bu sëriñ Cheikh Maguette nga xam ne moo jàpp sama loxo yóbbu ma sëñ Mountakha Bassirou bi may gone gu ndaw ndeysaan waaw di ñaanal waa Daaru Minam yëpp mhm. di ñaanal tamit sëriñ moo xam Mouhamed Mbacke sama loxo ndeyjoor mooy fi nga jaar ba ma egsi fii dëgg la am ñun dañoom kilifa moom laa waaw moom nga woo moo Mohamed Mbacke. Mhm. bu ma génn see ci média moom moo tax ne ma nangu moon a génn say média mhm. nangu ma ci woon génn de la moom moom wax na boo génnul da nga ko layoo ak borom subhanahu wa taala dëgg la te la téye la la moo waral nga tombee jamono média te génnoo dinañ wax fi nga féete wax li nga gëm daañ ci wax ni ngay dimbalee doomu aadama daañ ci waxtaan bu baax nga nëpp loolu mhm. moo ma waar ci côté boobu ba ba ba ba ba am maj loolu moo tax ma ma nangu di génn ci média nangu di génn ci looloo fi ma nekk rek laay nekk ñun sant nañ bu baax a baax loolu moo tax alhamdulilah en général boo génnee si média dañ naan wut xaalis nag dëgg la xam ne euh, sant nañ bu baax daal noonu laa ko mën a wax dama koy faral di wax lan la marabu waaw ñi fi ba mhm. RTS rek a fi amoon loolu moo yi bëri nañ fi loolu la rajo la loolu kese la a ñu gën a yaatal ak gën mhm. nga koy gisee nu la neex mhm. waaye li wér wóor mooy day am ñoo xam ne dañuy génn si média bi pour dimbalante ak askan wi. dëgg la askan wi dañoo sonn lool. Mm-hmm. dañoo sonn lool. jërëjëf jërëjëf ñàkk xam nag moo waral lu bari mm-hmm. di ñaanal bu baax tamit mbokki Touba yi. Mm-hmm. mbokki Touba Mbacke nga xamante ni ba tey ñoom it nu ma mel ñooma. ndeysaan waa koñ bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm. Euh, di ñaan sunu kàddu fekk leen si jàmm. amiin yàlla di ñaanal tamit euh, ki nga xamante ni mooy sama lépp. moom nekk kenn ci man. Moustapha Seye njàppandal ca ca Touba. Touba Daaru Minam. moo yor kànkaayre bu mag mu Sey jàppandal. dëgg la moom it nun dañuy jàppale ci côté bépp. jërëjëf moo taxit nee naa ko yow tawféex rek nga yem. Mhm. te nim ñuy jàppale noonu la jàppale ay nit. ndeysaan danaa jàpp sa loxo ba ca moom yóbbu la fa incha loo soxla da la koy defal lépp a jàppandal ci moom bu soobee yàlla jërëjëf Moustapha Sey jàppandal kon ñu ngi ñaanal ñëpp jërëjëf sëñ Dame sëriñ Dame Seck mu sëriñ Touba mën naa njëkki tuuti rek foofu rek doog a ñëw ci boroom jinne yi sëriñ Dame sekk mu Serigne Touba tuuti rek ci 30 secondes rek nga wax ma lan la la Serigne Touba defal ba nga dippee sa bopp Serigne Dame Seck mu Serigne Touba. roogu yi du gu nga xam kook nga bañ koo xam sëriñ Touba defal na la la tax nga war ko tudde sa bopp walla nga tudde ko doom. Mhm. maanaam roo xam nga doomu aadama roo la. Mhm. roo moo tax ñu naan doomu aadama. dëgg bu ci roo nekkul. pare na day dee day dee mhm, mhm. kon roo guy dund guy dund laa ne mhm. moo xam nga jamonoon teeg Serigne Touba moo xam nga ñëw gannaaw Serigne Touba ameel nga ko njukkee laax dëgg la loolu kay man maa ko wax du Serigne Dame Seck roo man di doon nag laa wax maam boo demul liggéeyal ko jëlal doom nga tudde ko ko ndeysaan pour pour feddali sa sa sa diggante ak moom man moom li ma defal ba ma ko doon wax émission bi du jeex du jeex kon daanaka lim ñu defal moom lim ñu defal moom wax dëgg wax nga lépp moom kay nit ñi xam nañ nit ñi xam nañ ba xam sëriñ daam mi ndax sëñ Tuubaa defal na ko wala defalu ko ndeysaan dégg nga wax wala leer na nañ boobu moom bàyyi naa ko askan askan wi ñoom xam nañ sëriñ daam sekk ba sëriñ Tuubaa lan la ko sëriñ Tuubaa defal ndeysaan jërëjëf ak ban xaal la yor ci sëriñ leer na leer leer na nañ ah, loolu moom leer na nañ leer ah, na nañ sëñ daam nga ne mu sëriñ Tuubaa nga dolli ci sëriñ daam borom jinne yi jinne suñu borom sàq ko sàkk doomu aadama sàkk malaaka sàkk euh, mala yi lépp suñu borom a ko sàkk jinne am doxalinu boppam am gouvernement wu boppam di jaamu yàlla am ci ay yëfër am ci lu ne tey yow sëñ daam nga ne yaay boroom jinne yi bokk na ci li tax ma invité sama plateau bi ndax seize bii nga toog ndaanaan bu ne toog na fi nag ndaanaan rek a fi toog kii como du ma ko fi invité ndax balaa may invité nit man dama lay gëstu xool la ba xam ne dinga amal njëriñ askan wi ma a la kaay toog wala ma gëstu la xool la ba xam ne yow mii fit nan nga askan wi ma a la kaay wax ñu lu leer xam lu tax ma wala fi nga wax ñu lu leer bismillah ndax yaaw yaa ne yaay borom jinne yi yaay saaga nday jinne yi yaay am eh, jabaru jinne yi yaay yónni jinne muy dem yaay yónni jinne muy dem man am naa ci loolu problème moo tax ma ne la lan moo tax nga ne yow yaay borom jinne yi mhm. sëriñ Daam Seck yàlla dafa dogal moom bi mu xale ba ndaw mhm. sëriñ Daam bi mu xale ba ndaw mhm. gannaaw bi ko sëriñ bi feeñoo am lu mu def ci moom ba mu gisee kaw nu na bii soñ mu taxaa basir ba pare daa dem nag gëstu ji lan mooy jinne ak jinne nu mu mel dinañ ci ñëw di nga ma ko wax bis ba ma waxee ne yow yaay nga a dëggal na yaay borom jinne yi ba pare dinañ ñëw ci loolu maa ngi ñëw mhm. sëriñ daam dafa gëstu ji lan mooy jinne mhm. xam nga jinne jinne jinne danga nga koy gëstu ba xam lan mooy jinne ba man koo téye nit ki ne ko yaay jinne mu ne ah mhm. nga yónnee ko mu dem ñëw nga ne ko aha ah. loolu mooy loolu loolu sëriñ daam da koy def léegi nag def googu mu koy def ak am na ci ñoo xamante ni bu ñaanloo sëriñ daam fi nekk la ñu nekk sëriñ daam yónnee ay jinne mu indil leen seeni ñaam. yow mii waaw léegi nag bu leen ko indilee ñooñee ndax dana nattable ne sëriñ daam mooy borom jinne yi. ñooñu dañuy xam ne daa am lu ko indi. ñooñu dee la la ko indi kay ay jinne lay mën a doon. Mm-hmm. ndax bu dee doomu aadama loxo ak loxo la. waaw mais bu dee jinne da la koy tegeer rek. bu tegee wax sëriñ daam ne teg naa nga ne ko jëlal sama jinne la ko kooku ndax dana ko weeranteete. da def loolu ndax des dañ koy bëri nañ ci bëri nañ bëri bëri nañ ci bëri nañ ci résultat dafa am na kilifa gu ne ma sëriñ daam nit du man lépp def lépp ñu nangu nañ ne yor nga ay jinne nangu nga ne da ngay yónni jinne muy dem di ñëw parce que yàlla la ko may. xam nga yàlla tamit day mayee rek nag. waaw doo jinne Cheikh jinne problème bi nga ci am ne ñu ci bëri am nañ ko ci. waaw man am naa ci ñoom dañu defee ne ñoom dañu defee ne jinne moom ba am tukki daa war a yilif doomu aadama doomu aadama warut am màqaam ak pouvoir gëdd ko. non saaga ko non ah, yilif doomu aadama. xaaral ma ñëw waaw mun ñoom dañoo defe ne jinne doomu aadama amul sañ-sañu saaga ko amul sañ-sañu yónne ko amul sañ-sañu sukkuloo ko mu sukk. non pas ñu bëri mën-mën ji la ñuy wax kay. ñu bëri laa ne ñoom loolu la ñu foog. mais yàlla dafa mën a maye. Mhm. sëriñ daam day saaga jinne day yónni jinne mu dem ñëw day liggéeyloo jinne jinne liggéey ci neex ci neex naqare xaw ma nag ban secret la sëriñ daam yor ah di nga xam secret bi di nga ko wax oh, waaw du ma waxe sama secret mais xaw ma nag sëriñ daam laa ne ban secret la yor ban yàlla la yor aha ah, waaw waaw du ma ko wax waaw <laughs> loolu dama ko wax ndax mën naa ko wax nit fatu di ko ñooddi bu ko ñoddee bu ko ëttuna mën naa jaar ci mbedd yi bu boobaa sëriñ daam a ko lor ah. lor ay bokkam loolu moo tax du ma mën a waxee la may xëcc ba yónni ji ne di ko saaga muy dem di ñëw leer na wala leerul leerul dama laa ne. man man ci man ba tey. waa leeru ko dama ne laa ne Serigne daam secret ba mu yor bay saaga jinne te yónni jinne muy dem di ñëw Serigne daam da wax secret booba parce que bu ko waxee bu ko waxee am public ñëppay dégg. waaw comme neex man ngaa ñor di sag si jaari di xëcc léegi boo xëccee la ngay xëcc boo ko attanul nag. ah kon ci turu yàlla nga ko jaar. turu yàlla lan yor. turu yàlla woowee bu bënne day am lu ne lay àndal. Uh-huh. waaye nag li jiitu loolu dañoo gëstu ji tamit lan mooy jinne. lan mooy jinne lan mooy jinne waaw. waaw jinne euh, ni doomu aadama mel doomu aadama da ko xaw ëpp yaram dafa am doomu aadama dañu xaw am yaram jinne nag daa xaw a sew ah jinne daa sew waa mais du yëpp a sew waaw mais jinne yi ci bëree bëri dañoo xaw a sew beneen bi ci topp tamit fi fi xaw a wuteeg doomu aadama dañoo da ci am yoo xam ne dañoo xaw a njool waaw njool njool waaw dañoo gën a siggi doomu aadama nga xam ne yow boo ne jàkk nii rek da ngay xam ne kii moom du njoolaayam bii doy na waar waaw dégg nga wax wala dégg nga wax bu baax tànk bi nag xam na am différence tuuti. waaw mais bëriwut. ah ñun ñi nee nañu jinne tànk yi tànk mbaam la. déedéet déedéet déedéet. du dëgg loolu du dëgg du tànku mbaam de du tànk mbaam du tànku mbaam tuuti la waree ak ak ak maam day xaw a rëy. waaw tànk ba day xaw a gudd tuuti. foofu rek la wuutee ak tànku doomu aadama beneen bi ci topp yor nay loxo kam ni doomu aadama yoree loxo. waaw li fi neen fi ma gémmiñ gi tamit benn la rek. day gis carrément. waaw day gis day gis carrément yore bëtam yoru gimiñam lekk gi mi lekk nag ak lekk doomu moom moom bokk. lu muy lekk jinne waaw ñoom li ñuy ëpp lu ñuy lekk ay ñànkatang saar yooyu. Ah. ay xeeti kii yooyu. ok voilà ñoom yooyu la ñun nag xam nga dañu bëgg ay ceebu jën. waaw waaw foofu la xaw a wootee ci wàllum lekkin bu dee nag ci wàllum mel jinne naka la mel nag am na ci jinne yoo xam ne dañoo xees. waaw am na jën yoo xam ne dañoo xaw a ñuul ah comme nit rek kon am na nit yu xees am na nit yu ñuul waaw léegi beneen bi ci topp nag fi mu xaw a wute tuuti ak doomu aadama mooy dañoo mën a yar seen karaw nag moom waaw ah, dañuy am karaw gi dañ koy bàyyi mu wàcc waaw dégg wax bi même yu góor sax dañoo mën a bàyyi mu wàcc jinne nag am na yu góor am yu jigéen dëgg la jinne am na yu jaamu yàlla am yu jaamul yàlla dëgg la man li ma lay lu ma xam la am na ci ruu yoo xamante ni ruu jinne yoo xam ne ñoo la dàq jàngar xuraan neel waaw loolu xam naa ko man. ah ah xam loo xam naa ko waaw kon jeex. d'accord am na ci jinne yoo xamante ni ay doome xaraam lañ nag. mën nañoo taalu kër léegi dem seen yoon. ay yëfër lañ ay yëfër lañ ay saay-saay lañ. baaxuñu ci lu bon rek lañuy ñu dox. d'accord buñ séenee ku rafet. seen sëriñ yoon ni leen. sëriñ jinne day am ñoo xam jinne day am day am. sëriñ day am sëriñ. waaw daam mi tey ji exemple exemple nga tooñ ko. waaw. mën na caw jinneem wa wala ma am lu mu sant jinneem xam nga jinne ba day def day day def réagir day dem liggéey li ko sëriñ parce que ñemewut sëñ daam waaw nii la affaire yi demee léegi nag sëriñ daam bu dee ko baaxa moom waaw bu dee bu dee bu dee bu dee sëriñ daam moom borom baax la daal noonu laal ko mën mm-hmm. moom dana am lu virus mm-hmm. dégg nga wax waaye bu dee ki nga xam ne boromi jinne la te soxor moom kooku moom day yónnee jinneem ñuy fàdd rek d' accord ma dégg nga fi xaw ma dégg nga li ma wax nga ne ñaata am na bu ma seetaan sëriñ daam yow. nga ne am nga xaw ma juróom-ñaar fukki nangam. ak ah. nangam jabaru jinne ay jabaru jinne nga wax nga am. waa nan nga def ba am jabaru jinne yi. Euh, jabari jinne yi day am jinne yoo xamante ni dañuy dem a dem ba dañ lay bëgg rek. fee la kaar man dama laa bëgg bëgg laa sama buum. dama lay dénk sama buum yow sëriñ daam. nga nga doon sama borom kër. nga jël bëri na. bëri na même man sama maam noonu la bari woon ay jinne mais nag nekku doon ci ay média moom tam ni ma def ni man génn si waaw loolu du dara soso loolu dara mais comme jabar a ah, xam kay loolu du dara xam nga lu tax xam nga lu tax waaw waaw waaw moom da ngeen di xaw a waaw yéen moom da ngeen mais moom comme jabar normal nii da ngay sëy ak moom ak yëpp yow waaw mais bu bu ma ci joxee kenn ay nag bala ma cee joxaat kenn ay day xaw a yàgg am nga ci ay doom aw ma doom doom bu maam moom day gaaw a kii day gaaw a faatu ah moom moom wax dëgg moom doom bu ma ci am rek day gaaw a faatu ci ñoom ci ñoom ci ñoom waaw mais mais nekkul doomu nit ni moom mais doomu jinne la man ak doomi jinne yi waaw ñi may am ak euh, doo jinne yi ci jëm boppam moom lu ma ci am day gaaw a faatu day dem xam naa nag nattu yàlla la ah déet du nattu dafa possible lul sax nit nga am ak doom jinne xëy na xam nga loolu loolu la dafa possible mais day am doom yi carrément mais du yàggaat dara day faatu day faatu voilà léegi nag waaw sëriñ daam naka la def ba am ay jabari jinne waaw sëriñ daam dafa nekk ba tey nit koo xamante ni moom dafa dafa set dafa am yoonu jël woo xam ne dafa set. waaw setal ruuxa bi. ok dégg nga wax bi. ni la doomu aadama yi di joxe bopp noonu la ay jinne di joxe bopp. ni doomu aadama naan ñëw na la sëñ daam dama laa bëgg rek te yàlla tax bëggoon naa nga rama soog bu noonu la jinne di feeñoo na la sëriñ daamoo këng këng sëñ daam nga naa mun na la damaa bëggoon dénk la sama bu ñii rek la demee du leneen. waaw lu tax yow yow lu tax yow quoi lu tax man demuñu ci man dénk ma seen buum. lu tax demuñu ci Jean mais toog jënk ko buumam. lu tax demuñu sama réalisateur bi. ñu ñëw ci directement ci sëñ Dame. dem sëñ Dame il faut nga convaincre ma soo du ma la gëm dimension bi sëriñ Dame tolloo. foofu. waaw waaw loolu moo tax. Uh-huh. loo rek ban dimension nga toll ban la. waaw dimension turu yàlla bi la wala leer gi la wala lan la. waaw dafa am yàlla wu yor. ba pare tamit dafa am dimension bu toll boo xamante ni wóor na suñu borom moo ñu fa tollal waaw xam nga nit ki man naa bëgg nag waaye yàllaa koy dimbali mhm. ci bi ma ndaw mën naa góor-góor waaye yàllaa koy dimbali nag man dem naa ba am yéeg-yéeg bi na xam ne sama borom moom a dimbali dégg nga wax mhm. wala déggoo li ma wax baa ngi lii rekk la du leneen lii dong la gis nga doomu aadama yi nan tijji seen nan tijji seen xel yi te xam na tamit yàlla daa mën a maye kii day am njëgu iPhone kii du am njëgu iPhone li ma leen wax xam ngeen ko bu baax a baax. yow da nga sa jinne yi ci lu bon. dama ne euh, non non non. déet déet déet ma yebal sama jinne ci lu bon xam nga lu tax. Ah. xam lu tax jinne yu ci bëree bëri man dama leen a tuubal bi ma leen tuubalee tamit. bi ma leen tuubalee tamit dama leen teg ci yoonu siraatal mustaqiim. waaye ci sa làmmiñ. waa samay nopp. waaw sa benn émission nga ni. waaw xam na benn sëriñ bu la tooñoon. waaw ñu ne la anamu nga jaale ko ay mbokkam nga ne du yow waaye jinne gi nga àndal ñoo ñoo soxor waa dafa am waa dafa am ay jinne yoo xamante nii fi mu ne nii moom dafa am jinne yoo xamante nii mais bu njëkkoon ak léegi bokkul mais dafa amoon jinne catégorie jinne yoo xam ne dañoo xawoon a saay-saay ñoom boo tooñee sëriñ daam rek lay attaqué loolu moo tax dafa am catégorie jinne yoo xam ne dañoo xaw a kàccoor boo tooñee sëriñ daam rek baa nga draayee sëriñ daam rek sëriñ daam moom man naa ree mais ñoo ñooy réagir dégg nga sëñ daal mën naa bëgg jàmm mu ree mais ñale ñooy réagir. ñoom ñooy réagir. est-ce que dégg nga wala. mais loolu defu la dara yow. dégg nga dégg nga li ma wax yow loolu defu la dara méttiwu la yow. dégg ma wax ne wala ndax loolu métti na la wala méttiwu la. Euh, le fait que nit tooñ la sa jinne réagir ci kawam ba faat bakkanam et tout yow loolu après yow tranquille nga quoi yow. waaw ku régler rek duñ la def dara. <coughs> ma bëgg mooy doomu aadama yi ku ci gën a mën a régle rek nga régler kese. xam nga doomu aadama moom ak ruu rek moo nekk ci moom am na ñoo xam ne boo leen attaqué def leen def leen gone baa nga def leen euh, caaxaankat wala yooyu di leen attaqué tamit loo ci góobee na ko gar rek loolu kese la kat mm-hmm. loolu kese waaye sëriñ daam moom jàmm rek la woote jàmm képp la woote waaye ku woo ci ay fekk si la ci ay ku ma woo ci ay tamit danaa la moytu waaye bu ma yëre ba xam ne tamit ma jëflante koog yow rek kese waaye nag jàmm dong la woote moom d'accord waaye nag daa am ñoo xam ne dañoo xamut fooy metti loolu tamit lu jar a bàyyi xel lu jar a bàyyi yàlla jéggal waaye sénégalais yi fii dafa am ñoo xam ne ñoo xamut fay metti dëgg la ndax dañuy gis dañuy gis mbir te duñ xam lu ko waral d'accord naa léegi sëñ waaw loolu kon moo tax neen ciy bàyyi xel bu baax du ñëpp a yem daal léegi sëñ daam soso du ñëpp a yem sa plateau bi gone do fi toog ah am na ca plateau yoo xam ne gaa yaa nga fay toog mais sa plateau bi yow gone do fi toog léegi kon plateau yi yëpp a yem léegi yow ruu yëpp a yem yow déedéet yemuñu ruu yëpp yem ak maye gi yemul maye gi tamit yamul waaw gi ginnaaw yàlla may na la waaye daal li ma bëgg ñu xam ko mooy jinne jinne hmm. bu ci kanamee tuuti sax mën na maa yebal jinne mu ñëw yuuxu fii fan fii yi ngay séen mu yuuxu fan mu yuuxu fii dama dul xam nag caméra caméra yi bu lakkeeg yooyu foofu laay wax waaye bu la soobee moom man na maa yónni jinne ci kanam tuuti mu yuuxu fi léegi nag bu yuuxoo bu émission bay lakkee bu yëf yi lakkee tamit man damay taal sama to ñibbi waaw léegi sëñ sëñ waaw parce que werante xuxaan werante tamit na ñëw werante xuxaan tamit tekki tubay waaw waaw ci kanam tuuti dina ñëw parce que loolu a mën a tax mu ñëw ci kanam tuuti rek dina ñëw rek ba fii man ci kanam tuuti man dinaa li nga wax yëpp ci kanam tuuti jinne dina ñëw dina ñëw waaw kon jeex léegi yow mii nga xam ni. ndax man damaa bañoon émission bi yàqu. Ah. ma waxoon leen na leen dimbali leen ma rek ndax dem naa say télé yoo xam ne bu ñu yeggee. non non kii di ma dégg ma ñëw waaw taxaw ma ñëw taxaw ma yow moom lu leer nga bëgg. waaye yow kay taxawal rek. non non non gars yi dama ne. waaw yow laa ne taxawal rek. waaw dama ne. waaw am na cee émission yoo xam ne dama daa dem. yaa ngi dégg. waaw dañ koy yàq carrément ba ma ba ma dem ci sero léegi nag loolee moo tax rek. may bëgg ñuy waxtaane xam-xam émission bi dox say soppe beg dara bañ a yàqu loolu doo nga laa ca bëggoon waaye bu ci kanamee tuuti émission mën naa yàqu te man bu ma xasee ba commencé tamit jeex naa bu ma xasee bu ma xasee ba commencé woo samay jën lu leer sénégalais xam nañ ma lu leer ci laa waa yow moom d'accord mais bu la neexee laa ne bu ci kanamee tuuti émission bi def lay def lakk dama lakkee damay dem sama yoon mais mais man laa wax xam nga pour ma leer waaw pour ma leer waaw léegi dama lay wax rek <laughs> man bëgguma ku ragal man ragal la bëgguma ku ma ragal damaa bëgg doomu aadama man daal li ma bëgg mooy ñu joxante ay wàccuwaay waaw damaa bëgg daal ñu joxante ay wàccuwaay waaw te ñun ñëpp ñu maase ragal yàlla te jaam d'accord kese la xanaa xamoon ne sëriñ daam jinne yi ka nii ak jinne yi ka yaakaar nii ak jinne yi ka ji yi jébbalu ñu yooyu yëpp li ko war a moo de sëriñ daam daa set rek di jaamu yàlla loolu kese la de ragal yàlla kese te doyloo xaadim rasul kese la sëriñ doyloo si xaadim rasul kese ak ragal xalifaam bii fi toog tamit ba tey ma ragal yàlla laa wax laa wax dama ne doomu aadama dafay ragal yàlla sëriñ daam mi laa daa ragal yàlla di jaamu yàlla léegi nag doyloo sëñ Tuubaa déggoo ma de yàlla fay ko lim ko fay nii est que dégg nga ma bu baax doyloo sëñ Tuubaa ndax jaamu ga ngay jaamu yàlla boo doyloo wut xaadim day mel ne ceeb booy togg te a ca as dégg naa la moo tax a beroo nii. dégg naa la bu nit weex weex na doyloo xaadim rek. dégg bu ko doyloo rek mbiram day am. d'accord na waaye bis bu ko fa bàyyi. d'accord yàqu ko nañ ko na. nañ ko man moom say ma la leer na da nga xam ne lu ma la wax. ko seetaatee ba nga ne dëgg la. waaw non moo tax ba nga waxee tamit déglu naa ko sa biir wax naa ndeysaan. man ma man ma d'accord léegi kon ci biir ñu dimbali. non attends attends. loolu la la noonu toog leen toog leen bu leen ñëw bu leen ñëw toog leen toog leen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 Saliou demal nga defal ko son bi. moo tax moo tax waaw xaar xaar mu ñëw defaral la bi en attendant. Ah, kon Sénégal ngeen xam ni am naa gan. Sénégal ngeen xam ni xam-xam am na fii ci réew mi. Sénégal ngeen xam ni suñu borom maye na. Sëriñ Daama ngi gis lu ñu gisul ñun ñii. Sëriñ Daama ngi wax li mu xam. waaye Sëriñ Daam tamit mi ngi jàkkarloo ku nga xam ni it ay la yéen ragalul ci ndax nag wax am na ay jinne yoo xam ne jullit lanu te sunu borom la ñuy jaamu te gëm naa ne moom miit it nite na nit goo xam ni du fi yebal kenn kuy gaañ benn doomu aadama kon sama xel day daal ci loolu nañu xaar fee ba nga pare ñu ànd ak yow dem ña nga toog toog nag buñ paree ñu ànd ak yow moom kay man la ni léegi ñoom ñii ñoom ñii toog bu ma soñoon émission bi day jàll ci jàmm rek ñoom day jàll ubbeeg day jàll ci jàmm parce que ñi koy xaar daa bëri <laughs> est-ce que ñi koy xaar daa ñu koy xaar a bëri sama soppe yu nekk Amérique yoo xam bi ma ne leen sa soso laa jëm dañ ma ay sëñ daam dimbali ñu mu rom ci dar rek émission bi dimbali ñu incha allah kon day dal yàq day dal day dal loolu rek la day dal kon hmm. tout le temps da ngay gis nit ñu ne ay ay jinne ko dugg hmm. muy xalangu wala mu rafetoon lool jékki-jékki dof ñu ne jinne ko dugg waa jinne bu lay dugg lan la xanaa moom ngelaw la lay duggee wala da ngay teg ceeb mu ñëw lekk nag yow wala nan lay duggee doomu adama wala est-ce que boog dëgg la jinne dina dugg doomu aadama waaw léegi nag ceeb bi nga taaj léegi waaw boo waxoon bismillah hmm. saytaane mi ngi bokk ak yow te ñoom saytaane lañ ko nañ ko xamee noonu te ñoom xeetu saytaane lañ bokk waaw waaw jinne sayaatin waaw loolu kay jeexal na yow jinne sayaatin kay jeexal uh-huh. waaw mooy seytaane mën naa def tàkk-tàkk. waaw mën naa def tàkk-tàkk. pour jël fitu nit ki. waaw léegi nga ne mën nañu dugg. mën na def ngelaw. ngelaw dugg la mais lan moo tax mu war laa dugg. lan lan la jublu ci yow. ku ku farluwut ku farluwut setoo tëkkoo ay kaaraange. alali jinne nga yaa sàggan ku sàggan ku ne. waaw ku sàggan ku ne mag ñalu daaw ku farlu farlu for. waaw ku sàggan tamit. alali jinne nga boo sàggane rek alali jinne nga doomu aadama daa war a xam ne kay yàlla defal dégg nga wax bi mu farlu góor-góorlu defaru waxambaane surto waxambaane hmm. day defaru bu defaruwul rek moo yàqal boppam waxambaane bu jigéen bi tamit waaw jigéen ñi gën a sonal nag waxambaane bu jigéen bi tamit am na ci waxambaane am na ci jigéen yoo xam ne dangay gis seenu taar nga naan waa lii moom taarub teg sa la mhm. daa am la ko dugg la ko dugg loolee moo tax du sa sa màggat fu mu dem sëyi day ñëwaat day ñëwaat day ñëwaat wala kooka dee ka muy sëyal wala ka muy waa mais am na ci ñoo xam ne dañuy xaw am bopp waaw ka ngay sëyal day am bopp du gaaw faatu mais da nga ne mi jafeñ-jafeñ ndaw sa day ñëwaat te fekk yow joxe nga ca xaalis bu baree bëri day ñëwaat léegi yow bu la duggee yow mën nga ko faj yow waa xaar ma ñëw waaw day ñëwaat waaw xam nga loolu ci effet jinne la waaw nga wax bi mhm. kon moo tax bala ngaa pour fas soxna nga gis ko nii mu rafet bala nga ko fas demal ci ñi yàlla may man neexaluma kenn nag pour mu ñëw man neexaluma kenn de ñoom nañu defe ne taxawee ci média bi nii di wax nii pour xëcc ay nit la di neex man man neexaluma moo dara ah waaw waaw man moom ku ma woo nag mën naa laa dimbali waaye man neexaluma kenn mm-hmm. ku ku defee ne sëriñ daab day wut xaalis dencaatal sab xaalis bu baax a baax leer na mm-hmm. dencaat ko bu baax a baax ba seet kala doy leer na mhm. man neexaluma kenn mhm. génn gi may génn nii wax naa ko léegi damay génn pour laabirante ndeysaan ak ginne effet yi bon yi mi def mhm. may laabiré doomaadama pour ñu koy moytu lii la kon daal mën na nekk ngelaw dugg la mën na nekk wala solin yu gàtt yi ñuy sol léegi xale jigéen yi waa yooyu tamit ba tey baaxut waaw yooyu tamit ba tey baaxul parce que am na ci façon yi ngelaw yoo xam ne du ngelawee kese waaw saytaane ci rax dégg wax bi mhm. seytaane moo ci rax léegi seytaane boobu ci rax nag boo suulóotu yiiwee c'est sa suufu tànk lay jaar yow boo koy génne noo koy génne ba ma koy génn tey ji bu nit tey tey jinne dugguma man tey ma ñëw seet si la yow waaw wala jinne maa dugg fi mu jaaree rek laa koy génne fi mu jaaree laa koy génne bu ma jëflanteeg moom ba dee ci mën naa doon sax ci benn fan mën na doon sax ci benn fan mhm. su ma ko xoolee ba xam ne lii jinne la na ba na ma koy dumaa ba mu génn buy génn da ko yëg mais pas ay filmé nag dina ñëw ci loolu am waaw waaw loolu dinañ ci waxtaan man dama filmé loolu dinañ ci waxtaan loolu man moom damu ma ni fëgg sama dënn dinañ ci waxtaan maa faj ci yeeg dinañ ci waxtaan <laughs> daañu ñëw yàlla tax may def de daañu ñëw yàlla tax may def xam-xam il faut nga xam nga tey lu am solo waa xam nañ na am nga xam-xam waaw loolu jaru sax nga koy wax waaw mais li am solo mooy ñin ñi gëm sax xam-xam mën a ñëw nga leen di dimbali waa donc il faut nga wax ma tey jinne bu la duggee tey waa yow ci nan nga koy génnee maanaam ci ay saaru alxuraan la wala ay ay ay sunguf yoo nga xam parce que yenn saa yi da jël sunguf rek ah, jox ko nit mu muy wàcco koog di génn ay ñende xit ak ñu ne la ah, jënd ah, ji dem na alors que jënd lan lan lan ngay jat ay jat la waaw ay jat la voilà ay jat la nag du ma wax li may jat mais ay jat la ay jat laay téye doomu aadama ci bët yi waaw bët yi ci jëm boppam bët yi ci jëm moom laay teg samay baaraam di ka jat di jat da ngay gis bët yi ni muy xapp-xappale Mm, mais du ma filmé ba tey moo tax yow dalay dalay jaaxal man moom may faje dalay xaw a jaaxal parce que filmé wu ma fi ma toll nii bu ma neexoon neexal ay nit loolu daan ci waxtaan di puukare wu man yooyu bu ma ko defee damaa fattu xaloo ba saa borom na bis boo puukare ma rocc àgguñ ci loolu dañ ci waxtaan ak yow waaw leer na li ma wax leer na léegi bu ko defee sëriñ daam ay jataam la yor gannaaw ba mu jëfandikoo arxuraan nag ba noppi waaw arxuraan mooy laytaay ga ba ma eggalee ko samay jat mhm. neex ndaqari jinne bi day génn day dem day génn force te bu génnee day faral di tuub tuub loolu mooy war a sëriñ daam di bari ay taalibey jinne waxuma jabar yi nag ok waxuma jabar yi de taalibe yi ñëwagun ci taalibe yi da leen di yónni ñuy dem taalibe yi waaw ñëwaguma ci taalibe yi jinne xam nga jabar rek nga lañ wax jabar yi ne nga am 73 jabar 73 jabar yi jinne waaw doom nag bu ma am day gaaw a leer na leer na nañ man moom ay caaxaan laa xajut dëgg la loolu leer na nañ man moom léegi taalibe yi ñan ñan ngay yónni ñuy dem yàgg a teew la sama émission xam na ne man ay caaxaan xajuma ñan ngay yónni ñuy dem léegi nag ñi may yónni ñu may defal ay mission hmm. samay taalibe la samay soxna tamit léeg-léeg ma yónnee ci mission léegi nag marabu waaw xaar ma ñëw waaw léegi samay soxna tamit léeg-léeg ma yónnee ci nit mission mu defal ma ko hmm. ñëw na ma def naa ko leer na damaa bëgg nga sa baaraam foofu tuuti ma ko waaw léegi nag taalibe yi jinne yi waaw ñi ngi tollu ci ñeenti téeméeri taalibey jinne yow mi ak ñeent nga yor waaw ah, fi mu ne nii tembe tembe ak ñeent armée nga yor ñeenti téeméer ay taalibe nag laa wax soxna yi ay taalibe yoo xamante ni dañuy déglu sëriñ daam lu leen sëriñ daam wax def leen ko ñu def ah ba tey rek ñu ngi ci ah, l'Afrique et ñu ngi ci la Sénégal et ses mystères ñu ngi ci Jojo et a ah, di waxtaane lu sensible di waxtaane lu doy waar muy lu nga xam ni jinne la jinne dafa bokk ci créature yu nga xam ne suñu borom da koo may ko doole tayit man damaa bokk ci doomu aadama yi nga xam ni gawuma ni jinne moo ëpp doole doomu aadama bu fekkante ne ñu waarkat yi nga xam ne ñoom ñoo jàng alxuraan li ñu jàngal walla lu ñuy waar ñun que yàlla li mu sàkk yépp doomu aadama la ci gën a fonk kon man gëm naa ni man doomu aadama warta ragal jinne kon ñu ngi waxtaan ci cadre jinne ba léegi kon ñu ñëwaat encore ci yow waaw ah, pareegul kon ah, ñu xaar tuuti rek Saliou il foog mu gaaw ñu defaral ko batterie ñu ñëw ci loolu kon comme ni ma ko waxee rek man damaa defe ni doomu aadama li ko yàlla may mayu ko kenn ndax loolu laa dégg ci liñ ma jàngal mooy que ni li mu sàkk lu ne nit la ci gën a fonk te it pour man nit dara ëpp ko doole te it nit dara ñemewu ko sama papa daan na ma wax naan bul ragal gaynde ndax xam nga ñun dañoo bokk ci race bu nga xam ne dañ koy wax meññu ganna ñu dëkk ci dëkk bu nga xam ne mooy bundu tu ko xam bundu ku ne xam ni ginnaaw Tamba ci savane bi gaynde yi dafa dëkk doomu aadama yi foofu sama papa dafa ma daan wax naan bul ko ragal ndax gaynde saa bu xëyee suba day ñaan yàlla yàlla bu ma gis nit yàlla bu ma nit gis gaynde ñemewul nit loolu laa jàpp tamit ne jinne tamit warta ñeme nit dañu dellu siwaat ci loolu ñu ñëw ci Ousmane Sonko yow mii ak say jinne te nga bokk ci sëriñu Ousmane Sonko yi ma dégg ko sàllaan nañ ci samay nopp lan moo leen tey yéen ngeen génn Ousmane Sonko ci kaso ba yàgg say jinne boo toogee yéen yónni jinne yi kay war nañ koo génne kaso Euh, sëriñ daam waaw dafa nekk nit koo xam ne mhm. ay caaxaan da cee xëjut mhm. te bëggul tamit mhm. koo xam ne da koy wax talam koy wax du ko def sëriñ daam bëggul loolu man ak samay gars yi bëgguñu loolu leer ma yow sosoo boo demaa sampal ma abaa no express sampal ma ko may dégganteeg yow lu mu laaj ma lay wax ngay def ma naan la gisal naa abaa ay kàmb yu tàkk nga naan ma ay ca lu koy saafara ñuy def mujj gi ma lay expliqué wuyootoo ma ëppoo ful la sëriñ daam dëgg la leer na bu leer leer na kon intermédiaire la woon ëppoo ful la sëriñ daam kon intermédiaire la woon léegi di waxante ak sëriñ daam mu gi la ngay wax dafa too ci dara ëppoo ful la ak sëriñ daam lii rekk la waaye mbiru Ousmane Sonko ñetti fan koo xamante ni woo nga ma ci mbir Ousmane Sonko ñama ci daawoo nag neexalu ma ci kenn pour ñu woo ma. Mhm. ñama ci daawoo leer na. waaw ñama ci daawoo neexalu ci kenn pour mu woo ma. samay numéro moom ku ne xam na ko. lan moo tax ñu jékki-jékki la. waaw xaaral ma ñëw. waaw waaw xëy na kenn ku ak i mbiram rek. waaw léegi mi ngi nii tey léegi nag koo xam ne woo na ma. ci mbir Ousmane Sonko. ñetti fan laa ci maye su ma defee samay mbir. ñetti fan trois jours lii ñaata la. trois jours lii lan la. trois ñetti baara. waaw ñetti fan laa ci maye ci mbir Ousmane Sonko. ñu la doon woo buñ la woowaatee. neexalu ma leen pour ñu woo ma mais keneen ku ma man di woolaan ñetti fan. su ma defee soo biir pare ñetti fan. ci mbir Ousmane Sonko mu am jàmmam mu dem yoonam. leer na. dégg naa la wala ma wax. dégg naa la bu baax. yow soso boo seqee man mbir na ma dimbalil diw may dimbali diw ñuy jëflante mu jigi lu ma la wax defatoo ko. léegi loo bëgg yow mais lan moo tax li nga leen doon wax doo ko def xanaa daawuñu gis résultat ci li nga leen doon wax euh, nit ku ñuul dafa am nit ñu am na nit yoo xam ne dañoo mën a naagu daal waaw man mii loolu damay dal di léeg damay dimbale nit di dimbale nit ba ba mu jug moom mu defee na pare na waaye du noonu du tee da ngaa war di continuer di déggante ak Serigne Dame parce que xamoo ba xam téye kóllëre gi parce que xamoo ba yow Serigne Dame daa yore gaay wala dara di léegi bu yónnee gaayam na na mbiram taxaw taxaw nag te yow da ngay fayu weer dafa mel ne yow fayukat nga xaw ma dégg nga de non man moom samay gars yi bëgguñu kuy wax loo xam ne doo ko def waaw kon yow nga yaakaar ne yow léegi nag ci mbir Ousmane Sonko ci mbir Ousmane Sonko da nga a Sonko moom maa parce que xamuloo Ousmane Sonko nee nga daa am ku nekk seen diggante woon ci ñooñu nga mere yow waa ñooña laa mere ndax dañoo wor waa ñooña dañoo wor waaye keneen ku ma woo bëgg lu baax ci mbir Ousmane Sonko ñu jëflante ci leer na man na xam nga politique ma waaw leer naa man politique ma de ku ma ku ma ñaan loo nag ma ñaan mais politique ma leer na ku bëgg a sampe tamit bu ñu jëflantee te waroo moom ma samp Amadou Ba mi waa ah, ah, ñuy samp sax bu ñëwee ci yow non dama ne laa ne man laa ne man woowuma kenn de waaw man maa la wax ñëw laa man maa ne la waaw Ba mi waa APR samp Macky mm. Sall samp ko waaw bu ñëwee ci yow nga samp ko président dama ne waaw Amadou Ba moom mi nga tudd moom bi ma xoolee mbiram gisaguma ak taxawaay ak ak sampeem. waaw moom bi ma xoolee mbiram. dina ñëw ci loolu léegi nag. waaw moom Amadou Ba bu ñëwee Serigne Dame ah Serigne Dame mën naa génn wax moom. leer na. waaw man képp koo xam ne ñëw nga ci man ñu jëflante danaa génn wax. kenn moomul saaw laa amee. d'accord waaw Ousmane Sonko nag ku baax la. Uh-huh. Ousmane Sonko. Uh-huh. ku baax la. te jàmm rek ci lay dox. non parce que tey jii ku bëgg baax la. waaw tey jii léegi nag. marabu léegi nag am na ñu ma ciy nogiseel pour mbiru Ousmane. marabu léegi ma ñëw ma ciy waxtaan ak pour mbiru Ousmane. léegi ma ñëw waaye ni daal la demee woon. léegi man ma ñëw waa d'accord naa léegi damay ñëw tuuti Ousmane Sonko nekk na yaakaar ñu bëri Sénégal surtout jeunesse bi ñu bëri jox ko bopp. ñu bëri am yaakaar ne kii xëy na amaana bis bu nekkee président Sénégal Sénégal dina soppeeku am naa ci yaakaar tamit. yow ngay sénégalais yow lan moo tax kon yow. ngay xaar nit ñëw ci yow dafa nekkul lu yomb nag. mais waroo xaar loolu. mais nekkul nag lu yomb ko war a def pour ñi nga xam ne au moins ay soppe Ousmane Sonko ko bëgg mu doon président. dafa nekku lu yomb. wala il faut ñëw ñëw jox la xaalis nga def xanaa non non yow xanaa xamoon ne boo demee gars yi da ngaa day egg rek def li muy def boo demee gars dafa attention lu mu yor yor yor daa nekk yoon de. waaw daa lu ci nekk ci biir. Mhm. maa man laa ne bu ma bëggee jàppale nit. dana am yéene bi pour jàppale ko waaye nag ndimbal da cay fekk loxol loxol borom foofu dong laay waxee de waaye nekku ne damaa am lu ma jàppal Ousmane wala dara borom baax la mësuñoo tegante bët nag waaye borom baax la mhm. dégg wax bi waaye ñu koy fàkkal kàmb daa xaw a bëri mhm. ñu koy yàqal te jege ko daa xaw a bëri mhm. dégg nga wax bu baax la koy réglé ci ay mbir la koy réglé ci ay mbir dafa nekkul ay caaxaan dégg nga wax bi maa gën a mën a fëgg sama dënn ne ñetti fan ma génn ko waaye daal ko xam ne mbiru Ousmane ko ñor na la soo ma wooyee ñu génne Ousmane tegtal yi may laaj buñ ko defee ma génne Ousmane leer na waaye Serigne daam nag mënut a am ngëm-ngëmam noonu rek woo ay jinneem ñu def noonu loolu du mën a kii d'accord xaw ma nag xaw ma nag xam nga mbirum gaayam de mm-hmm. wala xamoo mbirum gaay li ci ay gaay nit ak gaay faaw waa xam naa dégg na nit ak i gaay waaw nit ak i gaay bokkul ak nitu kese daal waaw waaw waaw nit ak gaay waaw day am lu cay wax. laa dégg naa dégg loolu rek. <laughs> bi ne xam ma loolu rek la dafa am loo wax sànq sa biir wax mu am solo lool nga ni di nga génne nit nit génne ci nit di nga faj nit waaye yow doo filme du ma filmer jamono juñ toll nii nag dafa xew ndax gars yi dañuy faj di filmer pour wane preuve ne man damay faj mën naa la jox exemple yu bari léegi yow ban problème nga am ci loolu lan la daf warul wala war na war na ñuy faj nit filmer ko wala warul. waa man dama koo rafetlu wut dama koo rafetlu wut. te kenn ku ci nan ko seet ci sa bopp. waaw di faju war a def ci sutura. waaw ñu xaawil la. waaw kenn ku ne ko seet ci boppam rek. ci benn côté bi da xam ne rafetul. waaw ci benn côté bi. waaw bu ñu xoolee xam ne rafetul. dëgg la. bu fekkee nag borom xel yi ñu ngi may déglu laa ci benn côté bi waaw borom xel yi ñu ngi may déglu waaw faj nit ngir jëmmi yàlla nee nga xam-xam nga yor ngir jëmmi yàlla mhm. di ko filmé waat di xawee suturaam ah loolu de man naa ñàkk waaw dégg nga wax léegi nag sëriñ daam moom moo taxit moom du def loolu moom doo ko def yow sëriñ daam léegi ñi koy def nag yow lan nga xalaat ci ñoom ban xalaat nga am ci ñoom ban gis-gis nga am ci ñoom ñi doon def xam-xam la wala am ñu xam-xam wala lan la loolu doo xam-xam fu nu mujjee ñu ci bëree bëri fay nañ ñu ci ah. bëree ñi ko daan def del si non non am na ku nekkoon mbuur del si tudd ki nekkoon mbuur del si for daal damay joxe tur yi damay joxe tur ki nekkoon mbuur nu mu ti waay waa ji waa ji wax yow waaye dimbali leen ma ki dëkk mbuur yaay wax de c'est dinaa ci ñëwaat ah, ok yaay wax de Thierno Thierno Moule ba léegi mi ngi fii toj te Thierno Moule moo moo fi commencé loolu sax di filmer ñi faj di ñi nekkoon fii ci senegal fii waaw man di faj di filmer sow ba léegi di fay naa leen ban na karaj yaa leen fay man Dame Seck maa leen fay ba naka rek. yaa fay Thierno Moule. ñu ci bari laa ne. waaw man maa leen fay. Abdoulaye Diop xaas. dama ne ñu ci bëree bari laa ne doon faj de filmé maa leen fay. ba léegi nii kay may waxe yow del siifur ba xam da gis ko yuuxoom de waaw wala da nga gis koy faj siifural rek yow kay yaa ngi ci internet bi kon moo taxit mbuur num tudd kon moo taxit kuy faj de filmé man rafetlu ma ko rafetlu ma ko te lu ci bëree bari tamit ay diil la ay diil xam nga ay diil diil ñëwal yuuxu ñëwal yuuxu ma jox la nga wax ne yaa ma faj ay diil ah pour ñeneen ñi ñëw pour nga lekk seen xaalis yu ci bëri bëri ay diil la ah leer na tudduma turu kenn nag mais ñu ko doon def ñu ci bëri bëri ay diil la leer na ay diil nga fay leen du xam nga diil waaw xam naa diil ay ay diil yaa leen lu ci mën naa leen fay laa wax mboolem koo xamante ni yaa ngi def di nax askan wi damay fay say lépp loolu kay leer ci baatin ci baatin ak ci saayir ci baati nag ci saayir mboolem koo xam ne laa ne yaa génn di di nax askan damay fay say làmp te bu ma fayee say làmp c'est fini jeex na dootoo tàkk jeex na kon yow ay ñu fi déggul ñooñu ay Thierno Moule Sow déggatuñ ko bu baax nañ ko daan déggee bu njëkk ba yaa ko fay kum ci mën daal waaw déet ñeme wax ji rek kum ci mën a doon daal ñi daa ah? faj de filmé ñi daa faj de filmé nag yaatu nañ ñi daa faj de filmé daal en tout cas moom fay na seen i làmp le roi du ballon ki tuddoon le roi du ballon nga ne na yow booy te man sax li ma ci bëgg mooy. kooku yaa ko fay. dama man li ma ci bëgg mooy nga ne ma ñi ñi daan faj di filmé ñu ngi nii di faj ba léegi. yow kay loolu laa bëgg nga génneel ma ko mais même Koukandé sax daan na filmé te déggatuma ko. rek boo chiffreur pare nga woo ma téléphone dama dibre mi ngi nii ba nii day faj di filmé. yaa fay ci ci ci baatin. kerek. <laughs> leer na. mais léegi nag loolu yow lan moo tax nga def ko askan wi. voilà ngir ñu ngir dimbali askan wi ñu bañ leen di nax. jeex na. kon yow doo nax askan wi de gëstu ji lu yow naxoo askan wi de. nit ki damay bëgg mu gëstu ji lu leer yor xam-xam bu leer bu dee jinne la yor ku ku sob te bëgg a gis jinne mu jàpp ci loxoom wan ko jinne léegi nag bu jommee sama yoon nekku ci léegi-léeg ay nit sob na ma dag may wan jinne ci force bi. wala xamoo ci loolu. waaw léeg-léeg jinne ne ma nit ne ma danga may wan jinne. Uh-huh. am ma dugal la saam néeg wan la jinne. man moom balaa nga fay jógee tey dag ma leer na waaye moo amul problème mais dama ne laa ne yow yow sax ñame nga yow waaye dama ne la laa ne dafa am bopp yoo xam ne attanu jinne loolu tamit lu jar a bàyyi xel la am na ñoo xam ne bu ma leen ñaan am na ñoo xam ne sax bu ma leen ñaanalee ni ne pour jinne indi la ko dinaa ma déedéet sañ daam dimbali ma rek ndax bu ma koy sangoo damay ragal non mais deal bi nga wax loolu moo ci garaaw. ñu ci bëri bëri et deal lañ doon def. da ngay ñëw ñu fay la nga pour nga yuuxu. di yuuxu nay waxal yaa ma faj. te araam te araam waaye loo ci gis man nee naa la nekkuma ci média bi saa su de waaye am naa ñoo xam ne ñoo ma nekkal ci média pour def lu dul yoon dañ ma koy informer te buñ ma ko informer man ñetti fan ñetti fan mën naa ci yëkkati nit ñetti fan mën naa cee fay nit fan mën naa cee may nit alal alal mu mel ne jinne koy jox daañu ñëw ci loolu ñetti fan loolu dinañ ci waxtaan ñetti fan laa ne bu nit amee lu mi di jënt loolu kay mi ngi ci trois jours fi ñu wax rek trois jours li ma ci mën a def rek daa am secret mu ma àndal looloo tax ma lay wax loolu trois jours man naa cee noobal nit waaw fan mu jàpp neex naqari uh-huh. ñetti fan ma noobal ci nit neel waaw ñetti fan bu nit di régler dara mu tëë sotti mën naa ko régler ci ñett léegi yow mën nga maa jox kon ñett ñu nga xam ni Sénégal tey ñett ñu nga xam ne gëm nga ne bu weesoo yow ñu ay sëriñ lañu mën nañu leen dem seeti ñett tur manuma ko de parce que kon man ma jox la léegi man ma jox la ay tur gisuma lu ma doy léegi man ma jox la ay tur man ma doy la ay tur léegi daal xam nga lu ma bëgg waaw parce que man man xam naa si suñu nga xam ne aay nañu yow tey man ko mel ne Ablaye Diop xaas yow man xam naa ne aay na yow toog naa Ablaye job xaas faj yow waaw waaw waaw d'accord yow waaw mais man laa ne gisuma waaw yow boo xamul dara man gisuma non gisuma te gisuma man xam nga lu ma gisul waaw tamit gisuma xëy kenn ko ne ak xam mais man gisuma waaw ah, man kon daal Sénégal daal fu ñu toll ni amatul sëriñ yu bari ay naxekat ay dóorekat nit ci bëri dañuy dóor yaa ngi soog a wax ñu ci bëree bëri dañuy nax askan wi te xanaa xam ne am na ci askan wi ñoo xam ne ñoo la ëpp bopp foofu dañoo ñaanul rek. dem mm. na seekere boobu loo jar a xam la. am na ñoo xam ne boo tàngalee seen xol. <laughs> du baax. léegi sëñ daam yow mii nga xam ni boole nga sa bopp ci ñi nga xam ne yàlla may na leen. xanaa sëñ daam du lépp. man boo gisee sëriñ daam. naqare na waaw du lépp nga mën. déedéet. waaw boo ci nga ne lu tax nga naqari dareet ba pare ñu ñëw ci loolu sëriñ daam boo gisee li tax mu naqari dareet waaw daa xajul ci ay caaxaan neel benn sëriñ daam du defantu neel ñaar sëriñ daam bëggut ko ko wor neel ñett mais yow yow yëg nga ne yenn saa di nga wax jinni di wax ci ci yow léeg-léeg da wax nii mais ah. sëñ daam waxul jinney wax waa dafa am waa am na ay catégorie man damay gis loolu ci yow man am na ay non am na ay catégorie man yenn saa yi da ngay wax am na mu wóor ma ne man comme sànq fii am na benn moment yaa ngi wax mais man daf ma wóor ne man kii ma jàkkaarloo ni du sëñ daal waa ñun moom nitu àndaale laan waaye nee naa la léegi nii laa wax ak samay jënne pour duñu yàq waaw waaw pour duñu yàq caméra yeeg yooyu pour mbir yi mën a neex loolu la waaye ñun moom dañoo rax moom man judduwaale ma nitu keese sax mais dañuy dugg ci yow yow di nga ko xam est-ce que di nga ko xam man judduwaale ma nitu keese sax ah. maam nitu kese nii wàcc nii non non. noo judd daa am la ma àndal. da ngay ñëw waaw dinañ ci ñëw. d' accord ci ñëw. d' accord xam nga man xajuma ci ay caaxaan. léegi yow mii dinañ ci ñëw. waaw sëñ daam yow lépp mën a sëriñ daam mënut lépp day leer dafa am yoo xam ne yàlla may na ma ca ba aw ma ci sik saak. muy ah, yaa ngi soog a wax nag. waaw. Sida. Sida. ah Sida sëriñ daam da koy traité faj ko. sida ji jaaxal doomu aadama yi. dañuy taxaw foofu de. sida ji jaaxal doomu aadama taxaw foofu de. taxawal sida taxaw de. sida ji jaaxal doomu aadama la. maa ngi ciy réglé maa ngi koy réglé ki tubaab ak yëpp la. ba ci fay ay nit sida ay sida. ñoo xam ne defoon na nappara na te dama koy faj bam na cocc bu ma bu ma nit ki gëmee nag laa wax bu ma gëmee. bu gëmee ne yàlla mën naa sàkk nit ki faj sida bu ko gëmee bu ko gëmoon nag jërëjëf. mais c'est mais leer na. ci côté boobu waaw déedéet déedéet déedéet dañuy wax tuuti ci sida bi ah, doog a ñëw. déet li ma la xëy leer na bu ko gëmee. bu gëmee ne doomu aadama yàlla mën na koo may. mais man am naa droit bañ laa gëm man. waaw bu la neexee. waaw léegi il faut nga convaincre neexee non la neexee mais ñëwoo fii di wax pour ma laa gëm. bu la neexee da ngay ñëw fii wax nga convaincre ma ma gëm li ngay wax. bu la neexee mais sida dañ koy faj. waaw mais loolu nag. sida sëriñ daam da koy faj ba nit ki na cocc leer na ñu daal laaj ci beneen wala. li wér yaa ma wax daal lan nga gën a man ok lan la la yàlla gën a maye ma wax ko. parce que bu ma ko wax ko damay kàcc. te man xaw ma ay kàcc. ak ban man moom xaw ma ay kàcc. ak ban. yi njuuj njaaj yi nit ñi man gëw ma ko. dëgg la moom feeñ na sa nit ki nga xam ne dafa ame ay rab. waaw. ñu faji ko fu ne neexal ci sëriñ seeg yëpp. ñu leen wax ay tuur ak yu ne. bu ñu bu ko sëriñ daam xoolee ba man koo faj. du ko yore rab ku ne nag mën naa ko faj bu ko sëriñ daam xoolee bana ne la mën naa koo faj ñawal man man ngaa wut ab taxi te gaaw ñëw muy ñaar boo ñëwee sëriñ daam du la fay dërëm leer na da lay faj ba nga leer naa waaw bu ko fajul moom wér na ñëwaat fii leer na bu sëriñ daam xool nag ba ne la mën naa koo faj laa wax mhm. ay gars yam ñeme ko xam ne kii dana ko faj ñawal leer na leer na ñaara ngoog wala ñaar ñaara ngoog ñaar ki nga xam ne wàllu alal la bëgg alal alal waaw alal dégg naa la ko koy dégg naa nga ne yow da ngay maye alal ci ñeent ci ñeenti fan xasu xaalis xasu xaalis waaw xasu xaalis dama koy liggéey su ma ko liggéeyee ñeenti fan ñetti fan jàpp ñeent fan nit ki day mel ne jinnee koy jox alal yàlla may nañ ci am na ñu ciy jëflanteen ñu ngi ñuy defale teraanga yu ne leer na leer na ci côté boobu wala leeragul waaw leer na nañ ñi ah, ku ku nangu nag na yàlla mën naa maye baax na ku ko nanguwul waaye amul problème waaw boo nangoo na yàlla mën naa maye nangul boo ko nangul lu sama yoon. ak lan Moussa dana woon yàlla damaa bëggoon nga tojal ma gémmiñ ñi nit ñi ndax kat man nit ñi moom wax ji daal Moussa na ko yàlla na ko yow Moussa lii ngay ñaan dama ko ama <laughs> man mii la bind man yàlla. nit ñaa ngi may wax lu ne. waaw dëgg dëgg. <laughs> waaw lay dëgg la. leer na wala leer na nañ. est-ce que dégg ma wax. bu kon moo tax man boo gëmee boo gëmul loolu sama yoon nekku ci. comme que yàllaa dem ma xam ne lii mënu ci dara man bu ma ci jéemee man dara mosula dëgg la léegi nag léegi nag ku neex nga téye sa bopp bañ maa gëm nangu naa mais nangu ma nag ku ma tooñ moom nangu ma nag nga tooñ ma leer na leer na nañ déggoo may wax de dégg nga ne nangu naa laa ne nga ne miik na ne miik ku la tooñ jàpp sa ñaam ku loo koy def dégg déggoo ma de nangu naa laa ne nga ne jàpp sa ñaam mais nangu ma ku ma tooñ. léegi ku parce que boo toogee fa ngay toog te tooñ ma tamit loo ci góobee na ko gar lu ma nit ki waxal dañ may informé man du ma nitu kese daal. waaw boo bëggee dégg dëgg daal man damaa nekkul nitu kese. Uh-huh. xaw ma nag déngale moo xam. maa lay dégg kum neex nga gëm kum a gëm. mais doomu aadama laa mais damaa nekkul nitu kese. Mm-hmm. te ku la tooñ. gis ko ku ci muus nag. xam ko jàngat sëñ daam. da nga xam ne lii mu la wax. lu weer la waaw. ak lan wax nga ma ñett. parce que ku ma masa attaqué ku ne yàq naa la. mu ma masa attaqué ku ne yàq naa yaram waa ngi tàng na leer na mu ma masa attaqué yàqu la. dégg nga li ma lay wax ne xam nga ko bu baax a baax. doo dégg benn sëriñ. ci média bi génn wax. ne sëñ daam leen boo ko defee ma may la ñetti fan. ah waaw kon moo tax moom sëriñ daam moom xam ngeen ne xëjut cay caaxaan. comme que nag sëriñ si wóolu seen doole fëgg seen dana ñooñu laay lijjanti. Sakama ah? waxuma la keneen suñu genre gi léegi. kon daal di nga faj sida di nga faj rab di nga maye alal. alal bu gaaw ñeent fa nit ki nga xam ne dafa bëgg alal. te alal rek tax koo jóg bu ñu gëmee nag laa. waaw waaw damay leeral de. waaw bu ñu gëmee waaw. bu ñu gëmul nag jërëjëf. ok mais léegi da nga koy may alal pare mu la doog a fay wala lay fay. asma xas bi asma. waaw asma yëfu saytaane la. waaw liy fàttali doomu aadama la. Uh-huh. day jaabante léeg-léeg mu taxaw ci xol bi uh-huh. nga xam ne dee rek lay bëgg waaw léeg-léeg mu jàll si nga xam ne nit ki day fat uh-huh. mbiru saytaane la da nga koy faj dees koy faj ci ñaari fan nga xam ne dafay fat bu dégganteeg sëriñ daam tegtal yi ma ko bu ko defee jarul muy ñëw jarul muy ñëw tegtal rek ay salax rek fatt ba day dañ laa neex naqare day nooyi carrément leer na yàlla may nañ ci waaw leer na wala de nañ koo xam ne bëgg nga kaaraange bu wér ku la laal yàqu baa mu ñëwaat ci yow wool sëñ Dame Seet. waaw numéro bi 78. 433 77 64. moom kay ci commencement émission bi bindal leen ma bi. boo ca wootee bu soobee yàlla boo ca woowe boo woowee sëriñ Dame ne ko kaaraange ku ma laal yàqu gaa woowaat ma téléphone wooteel seet. Hmm. leer na. ay hémorroïdes yo yooyu yooyu moom ni ci yàlla. maye sa naaf cancer ñu ay jabet. waaw waaw nag du ma ne danaa ko faj ba mu set. waaw nag naqaree faj la nag. Mm-hmm. cancer. Mm-hmm. lu naqaree faj la. jabet waaw jabet euh, it moom yàlla may ñu ci bu baax a baax. moom jabet oh. moom yàlla waaye cancer moom. assuré mm-hmm. wu ma damay leera waaw. ma nag dégg nga waxe wala. waaw assuré ah, wu ma ko assuré wu cancer. léeg-léeg danañ ci faj nit léeg-léeg dana xaw a jafe. leer na. xam nga bañ damay bañ nit ne dem naa sëriñ naam fajalu ma cancer. dëgg la te daa waxoon ne mën na ko mm-hmm. insérer na ko mm-hmm. leer na leer na ba est-ce que déggagul nga benn nit génn na sëriñ daam damaa tere ah te sëriñ si woote ci média bi yëpp bayre bayre bi ci sëriñ daam yor benn sëriñ yoru ko ci non ah, ah, non bayre bayre euh, euh, korom ak koro kii bayre bi ci sëriñ daam karamoxo te moo nekk mbuur bayre bu dama ne bayre bi ci sëriñ daam yor wala boobu da nga bokk ci ñi nga fay dama ne karamba bayre bi ci sëriñ daam karamba bokk ci nga fay dégguñ ko damane waaw dama man mboolem ku laa faj di filmé laa. waaw fay naa la ba nga nekk rek. nga tudd tur ak nga tudd tur ak bañ a tudd tur ak yow. beneen bi ci topp ah. waaw beneen bi ci topp. beneen bi ci topp Serigne Dame. Hmm. Serigne Dame mii di wax ak yow nii. Hmm. neex naqari laa ne. jubloo def da koy def. man lu ma jubloo def dama koy def. xaw ma ne dégg nga li ma wax. dégg jubloo def dama koy def. bu ma seetul yàlla lu ma jubloo def def mm-hmm. xaw ma nag dégg nga li ma wax am déet lu def nit dama ko def xam ma laa dégg waaw waaw bul def xaju xajuma sax ci jinne te jinne moo xaw a gën a garaaw doomu aadama mm-hmm. xanaa am na jinne moo xaw a gën a garaaw aadama dëgg la waaye nag doomu aadama bu dëggalee moom mooy yëlëf jinne bu dëggalee waaw bu dëggalee te sell man moom saa wax day leer bu dëggalee ta sell bu dëggalee te sell mm-hmm. beneen bi ci topp tamit lan mooy xam-xam xam nga nit ñi moom xam-xam xam-xam lan mooy. xam-xam lan mooy ijaaba moom mooy gars yi dañ koy jàng rek. waaw loolu tamit jàng boo jàngee alxuraan ba wàcc. ah, ah am na secret yoo xam ñu ngi ci biir alxuraan bi après dangay ngay am xam-xam wala du loolu. Eh, waaye ndaw Samb. ah sëriñ si de loolu lañ fiy wootee na ijaaba ijaaba ngeen koy wax. ijaaba. la nit di am. Ah. ijaaba li koy am njàng ma ko da ngay sa bakkan. sa bakkan bii lu neex da nga koy note. doo bëgg lu neex. benn mm. doo bëri looy jaxasoo ak doomu aadama yi mm-hmm. beneen ba ci topp tamit da ngay bëri looy téye kurus ñaareel ba faaw ngay turu yàlla wér soog am ijaaba ah, lii jàng ba noppi du tee bu sa bopp bu sa bopp buy métti da ngay daw ca koom ijaaba mu teg ca loxo bopp ba sedd man moom ah. man moom ay caaxaan laa man moom li leer naan ñu laa lay wax jàng taxul am ijaaba man nga am xam-xam nag di jullee ka kii mayee say ñaan mu nangu ñaan mu nangu ijaaba la ngay kii sa bakkan bi not sa bakkan fatu ay ati at fato ko di ñaan yàlla set wicc nag doo caaxaan man fi mu ne boo andee kaamil man damaa dóor ruugi nekk ci yoon musta mooy te loolu ci ka ñamee wax est ce que musoo mooy musumaa mooy maam tooñ mooy jigéen musuma ko def ruugi nekk ci yoon musta mooy ah sell nga ñi ko a waat bëriwul de naagoo ma nag mais ñi a waat bëriwul sëriñ si sax moom bëri na fi moom ay caga moom ay mooykat moom bëri na bëree bëree bëri ñu nekk ndakaaru gi ñu ci bëree bëri dana caaxaan rek waaw bëri na ci dara la ñu bëri na ci bëri na ci bari na ci bëri na ci waaw léegi léegi kon mm-hmm. sëriñ daam côté boobu yàlla may na ko ci bu baax a baax leer na koo xamee jublu nga jublu nga ci wala bëgg nga bëgg nga ko incha allah buñ ci déggante. ay dëddale ay dëddale. moom ak noob. di nga ko def moom ak noob. waaw euh, dëddale. buñ ko xoolee ba xam li ñu war a dëddale la. waaw daa am lu ñu war a dëddale am lu ñu war a dëddale. ah comme dëggale dëddale sàngara dëddale cigarette. waaw waaw mais jëkkër ak jabar doo leen dëddale. yaay ak doom doo leen dëddale. déedéet jëkkër ak jabar moom des leen boole. man loolu laa xam. waaw man ak samay gars ñun loolu lañ xam. ñoom ñu déggoo ci jëkkër ji bu fekkee day naqar dara ci kaw soxna si dañ koy xool rek la loolee. Ah. bu dee jigéen gi day da deret ci kaw ku góor ki dañ koy xool ñu rek la loolee. parce que tas yi bëri na trop ma waaw ah. divorce yi dafa bëri. waaw xam nga yow jamono gi am na ay jamono nga doon wax naan na xale yu na gaa yi takk. waaw wax mbaada yaa ngi takk ñu ngi takk waaye mi ngi ñu ngi tas rek. waaw dañuy tas léegi dañ ko xool ay contrat la dañ ko doon xool dañ ko doon xool. ah dañ ko xool sëy des koy xool. ah doo ko oto bi ngay jënd da ngay xool ndax oto bi jig na la wala kër gi ngay dëkk bala ngaa tabax day xool ndax kër gi baax na wala yooyu moo waral nit ñi nit ñi di yàqule rek d'accord naa yaa ngi dégg wax yaa ngi dégg leer na marabu waaw parce que temps bi lu ci des bëreetul te waxtaan wi dafa dégg nga wax bi waaw kon lu ci bëree bëri des ko war a xool leer na bi dees koy xool leer na bi dees koy xool sëy bi dees koy xool soxna si dees koy xool waaye day refer rek nga joxe sa xaalis e waay da ngay gis ah. koo xam ne soxna si day refer rek mu joxe xaalisam ñu maye ñu may ko ko te xoolu ko eh, te xoolu ko d'accord naa léegi marabu d'accord kër tamit man ngaa jënd terrain bu cher li tax borom gaaw wanteer la ko mhm. daa am lu tax mu gaaw wanteer la léegi bala nga koo jënd bala ngaa fay soxla da ngay woote leerlu ko dem ay jinne fay dëkk sax jeex dëgg la ma léegi bu ko dee kër gi day am problème Mara waxtu waa ngi waaj a jeex am na dafa am question yu am solo yu nga xam ni yow mi borom jinne yi yi xam lii am suba bëgg na nga baaxee ko sénégalais yi ndax sénégal am nañu problème lool 2024 kan mooy njiite réew mi ndax Macky Sall nee na moom c'est bon arrêté na xel yeeg xalaat yu bari demoon ci Ousmane Sonko ñu ne Ousmane Sonko du bokk ñu jël samp Amadou Ba tey yow selon yow yow mii xam lu ñëw suba sa xam-xam kan moo war a nekk futur président Sénégal en 2024 fi mu ne nii bi ma ko xoolee bi ma ko mujjee xool mm-hmm. xoolaatuguma ko ne waaye bi ma ko fi mujjee xool mm. lu toll ci juróomi fan bi ma ko xoolee mm. gisagu ma ne kenn ci ci di waxagul nii. waaw gisagu ci kenn. ah mu jiiteegul yëf yi. dégg nga wax bi. waaw gisagu ci kenn ku jiiteegul yëf yi. saa yoo xam ne nag dem naa ba xool ba gis. waaw dégg nga wax bi. wala kenn seeti ma seet si ma. ba ma assuré ko mu bañ maa wor. ma assuré ko. nga assuré ko ma assuré ko génn ci média bi wax. leer na. wala leerul. leer nañ mais jamono yi tembe tembe guma ku jiiteegul yëf fi te ay labajo tamit laa ci gis. élection yi waa ay labajo ay labajo yu doy waar d' accord d' accord léegi dafa ama leneen loo xam ni tëj na bopp sénégalais yi mooy combat Modou loo Ama Baldé hmm. ñëwagul mais tey ñu ne dina am suba ñu ne du am ginnaaw suba ñu ne dina am Ama feebar na Ama ma nga lag rose Modou Lo nangam lan nga ci gis yow mystique bi daa xawoon a bëri lan nga ci gis combat bi dina am wala du am combat bi waaw dina am mais mystique bi daa xawoon a bari ah. moo waral moo yeex ah dina am bi paa. dina am mais mais mais daa xaw a yéex. ndam li ci kan la jëm. Euh, euh, Modou Lo. am na côté boo xam ne boo fa taxawee. waaw daan gi leer na nañu. loolu nag moo xam naa ay bokkam bu ma mën mënee woo moo ciy gën. waaw waaye boo fa taxawul nag dana yéeme lool ci moom. waaw. yow daal Modou Lo nga gis ma nag dégg nga li ma xam de. da nga ne Modou Lo gis ne ndam laa ngi ci moom waaye am na côté boo xam ni faw ma taxawee fa. faw ma taxawee fa faw mu fexe ba bëree seetaane ba taxawee fa. nga taxawee rek day leer nañ. te loolu faaw ay faaw ay mbokkam wala pour pour ngóor si daaneel ko moom mi ngi mel ne yëkkati asamaan ba koo daaneel. loolu moom yombul. yombul ma moom yombul xanaa. wala lem suuf si. waaw wala dekkel ko dee. waaw noonu lay mel ci moom. kon moo tax it bu mënee xëy na bu mënee jokkoo ak sëñ daam wala mu mën a dem ci yeneen sëriñ si gën a kii rek. waaw dinañ ko buñ ko xoolee li saxaar ko dana mën a xam côté ba mi taxawee bu ko defee ndamam mën naa leer naa ñu. ko deful bu ko deful nag dana xaw a yéeme. dana yéeme ci moom. li nga wax de leer na. leer na wala leer kenn li ma wax ne leer na wala leer na yóbbu faar ndax waxoon ne diway daan waxoon ne diway daanu da nga ne bu defut lii nag dina daanu waaye bu defee lii daan voilà am na côté boo xam ne bu fa taxawee waaw dana daan d'accord parce que gis nan boppam yëkkati ko na ah, jërëjëf gis nan boppam yëkkati ko na sëñ daam ah waxtaan wi neex na waaye ñu ngi may déyee sànq ba léegi naan ma def nañ benn waxtu def nañ benn waxtu émission bi ñun yow maak yow benn émission doyuñu faw nga ñëwaat xam naa loolu benn question rek laa bëgg ñu waxtaane ko rek ñu ngeen may ma ko rek en une minute parce que dama gis ni da ngay yóbbu ay ay teraanga ci sëñ Muntaxa di yóbbu ay ceeb di yóbbu ay dawlin di maanaam di yóbbu ay addiya ci sëñ Munta sëñ Muntaxa loolu loolu waaw kay image yaa ngi nii lii yow la ak sëñ bi la nii defe naa ah, ah ñun mel maama waaw loolu lan la ci yow loolu loolu yokkute la ci yow wala wareef la ci yow wala lan la waaw lii moom damaa war Mhm. lii moom damaa war te maanaam sàkkuma ci ndimbalu kenn nag dégg nga waaw waaw dégg nga ma wax waaw sàkkuma ci ndimbalu kenn pour mu jox ma ma yóbbu man sant naa bu baax a baax xaw ma ne de maam mbokkuma ci ñi kii naan ay jox leen ma damay yóbbu man dama mënoon ah. man moom ci lu leer laay dox li may yóbbul sëñ bi man xam naa ko xam naa yoonoo may jaar xam naa ko leer leer na nañ xaw ma dégg nga li ma xam bu baax a baax dayem ñoo xam ne naan ay damay def social naa ma naa jox leen ma damay kii man doxewu ma noonu man moom li ma bëgg sénégalais yi di xam kan mooy Serigne Dame man loolu rek laa bëgg. leer na nañ xam Serigne Dame fa mu nekk a lam jom mais daal lii daal wareef la. voilà da koy def chaque at wala chaque. six mois weer bi ko defee bu dee see dama koy defaat. weer bi bu dellu bu dee see dama koy nga koy def te day ëpp ma joxe ni ah, mooy ceeb yi nii ak ndox lii ma joxe ni day ëpp. ceeb yi ak ndox yi. waa ceeb yi yow am nga alal nag oto bi dafa waroon fees dell a ceeb. dee nga wax bi am na lu la yàlla dénk. dee nga wax wala dee nga wax ma ne oto bi daa waroon fees dell. waaw mais man lépp def ko. waaw baaxul tamit baaxul Mm-hmm. dégg nga wax bi mm-hmm. waaw beneen bi ci topp maa ngi gërëm ñëpp nag mm-hmm. waaye nag kenn koo xam ne moom kenn la ci waaw non la jox après nga gërëm waa mais dinaa la jox après nga gërëm waaw mais daa am lu ma la bëgg a leeral la koo xam ne kenn la ci man Moustapha Seye njàppandal mooy borom kenkayri bi mooy borom kenkayri bi taalibe sëñ waa bu sell la ndeysaan te ku bëgg lu baax la mboolem koo xam ne dem nga ca moom dana la jàppale xool bi yaatu na macha allah ndeysaan waaw jërëjëf Moustapha Seye njàppandal jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf ah, sëñ bi waxtaan bi neex na ndeysaan jàppale nga sénégalais ci lu bari tayit nii ma jàkkaarloo ak yow tey comprendre naa la bu baax a baax a baax a baax a baax boo seetloo sama biir waxtaan ak yow nee la yenn saay da ngay dem ba mel ni daa ngay rax booy wax nit bu xamul dëgg day yaakaar ne kii day day day daa waaw wala nga yaakaar ne day day comédie waaye boobu da ngaa xamul dafa rax faw ñu jàkkaarloog yow pour mën a gis loolu wala faw nga am loo xam lu ndaw pour mën a gis loolu ci yow ngay borom baax. man baatin sax laa lu may jëfandikoo. ah. man baatin sax laa lu may jëfandikoo. baatin dafa mag mu ne ma da ngay wàññi ndax sinon doo doo doo doo da ngay gàtt fan. nga woo ma. taala sa oto ñëw sañ daam ma la wàññil mu ne ma wàññil baatin bi. Hmm. te na nga askan wi. yëkkati lu am solo. jox ma yëkkati ab neexal xaalis ba pare yëkkati waat teraanga ba te tayaat jox man mu baax la dama bul tudd saatur ah, ne la wàññil rek waaw wàññil baatin bi wàññil baatin bi kon sëñ bi kon wàññi ko bu baax waaye ñun moom dem nañ ba xam ne ñun baatin la nekk lu ñuy jëfandikoo sëñ bi da ngay tàggoo te xam ne émission bii da fi ñëwaat dese nañu yeneen i question i question lu ci mel ni tey da nga gis nit ku am alal jékki-jékki xëy suba amatoo yéen ngeen ne jinne yee ko nangu jinne yee taal man nanguwuma loolu donc loolu yëpp bëggoon naa ñu waxtaan ci waaye dañ koy def point rek ba ñëwaat ci loola incha allah ma jox la nga tàggoo ñu tëj waaw bi may njëkkee moo de bi nga xam ne moom laay njëkkee moo di Serigne Mohamed Mbacke ñu ngi koy gërëm kenn la ci ñun waa ñu ngi ñaanal tamit mboolem waa Gédé yëpp ndox mi tamit ndoxu ndoxum Touba mi. Hmm, wax ci yaa dëkk Touba manqué na lool. yaa fa dëkk loolu du yoon ndoxum Touba mi manqué na lool. ndox du manqué Touba. waaw ndox war ko manqué Touba kon nan ci nan na ci kilifa yi waxtaan te bàyyi ci xel. ñoo ngi ci. waaw nan ci waxtaan te bàyyi ci xel. Hmm, hmm. ndax popula Touba population la bu yaatu. te dañoo gëm sëñ Touba bëgg sëñ Touba. am yaakaar ci sëñ Touba moo tax ñu ñëw ci sëñ Touba. te ñoom nanguwut ay yëngal ak yooyu xam nga Touba amul ay yëngal. nga am Thiès bu nu bëggee yëngal. Ndakaaru bëgg a yëngal. Mbuur bëgg a yëngal Touba du yëngal amul lool. kon kilifa yi nan nan nan seetaat bu baax a baax a baax. Mm-hmm. yu ci bëree bëri na bu ñu ko doon informé sëñ Mountakha dana ci taxaw. Mm-hmm. waaye yu ci bëree bëri dañ ko ko dul wax. dañ ko dul wax. leer na man xam naa sañ sëñ Mountakha xam naa yërmande bi ci moom. Mm-hmm. xam naa pas-pas bi ci moom tamit. bi mu commencé liggéey bi da ne ku dem ma dem. ku demul ma dem. waaw daam mi tamit di wax ak ku ku ku ku gëm. moo dem ku ko gëmul maanaam bari yaay taar rek bari ko ci mbartal nga puus mu dem ñàkk leer na <laughs> beneen bi ci topp tamit man ki ma gën a yërëm mooy ki gëmut sëñ daam ndeysaan kooku dana yeex a jariñ <laughs> sëriñ daam avant muy commencé walam ñaan defa fatuxal wa ñaan yàlla ku aajoom na tafaju dërëmam eh. bu mu ñëw ci sëñ daam ndeysaan dërëmam dërëm dërëm bu ko yëkkate teg ko ci loxo mhm. bu sa aajo na tafaju insistel mhm. ba génn ci kon xam nga man xam naa li ma yor dëgg la waaw léegi kon ñu ngi bàyyi xel bu baax tamit waa kankaay re njàppandal mhm. sëriñ mo sëriñ euh, sëriñ Moustapha Sey kankaay re njàppandal waaw moom day kenn ci man looloo tax waaw moom moom sama xarit la ñëpp xamee nañ ma ko beneen bi ci topp dama bëgg waa Touba yëpp xam ne ah Moustapha Sey moo fa nekk mooy kankaay re bi mooy kankaay re njàppandal njàppandal njàppandal njàppandal boo nee Serigne Saliou borom jàppandal borom jàppandal boo nee Cheikh Moustapha Sey borom jàppandal borom jàppandal ndeysaan waaw da nga fa dem incha allah da nga fa dem bu ko nee loo bëgg dina la ko jàppandal numéro bi mooy 77 waaw mhm. boo wootee loo bëgg ñu andil la moom borom kenk yi mooy borom kenk 911 43 38 waaw tey jii boo nekkee na ko lii ak lii laa bëgg ñu livré boo defee 77 911 43 38 38 bu soobee yàlla li nga bëgg ñu andil la ko te léppay jàppandal kon waaw kon ma ngoog kon ma ngoog Moustapha Seye jàppandal di gërëm tamit waa koñ bi yëpp rek waa Gede yépp waaw waaye nag fàttewuma ñi ma jot a jaar gëstu ci ñoom xam-xam waa Mali yi bu ma lim du jeex dama gëstu xam-xam man Inde sax dem naa fa Inde Inde Inde sax dem naa fa Inde mm-hmm. naa Inde Inde gi sore gi dem naa fa ngir xam-xam ak melow jinne nu mi mel looloo tax moo tax sëriñ daam dimension bi nit ñi toll ak fi mi toll duñ mën a bokk man xam-xam daa am lu mu ma jaral xam nga ki nga xam ne xam-xam daa am lu ko jaral lool moo tax kon moo tax ñi ngi gërëm ñëpp di ñaan jàmm rek di xew ci réew mi di ñaanal nag kaw nu na bii soñ mën taxa basir di ñaanal ñëpp nag waaw kaw nu na bii soñ mën taxaa basir ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën koo jàmmal ba pare gën koo wéral roofaat ko kattan ndax sëñ mën taxaa mu fi am na solo lool na ngeen xam ne nag waa réseaux sociaux yi nañ xam ne dañ dul informer sëñ Muntaxa yenn yi loolu la dégg ngeen wax bi wala déggu leen wax bi dañ ko dul informer yenn yi waaye buñ ko doon informer da cee taxaw parce que lu baax dong la bëgg wa maa arsalnaaka ila rahmatan lil alamin loolu la boot maam yërmaande kese la baayam tamit noonu la demee woon mm. foo ko jubee day ree sëriñ Basiru Mbaay sëñ Muntaxa mi te buy waxtaan ak yow day ree day ree di xaqataay jërëjëf mbirum ree nag mbirum ree nag ci bu defaatee émission dinaa la leeralal ah. lan moo waral léeg-léeg nit de xàqtaay di ree ah. ndax day gis lu nit gis wala ndax daa xam lu nit ñi xamul ñëwaat incha allah yooyu yëpp ay xeet da ngay ñëwaat la yoo xam ne yow da ngay ñëwaat mara bu léegi xamul ma bëgg avant ngay tàggoo ñi doon xaar fee bàyyi leen ñu dem jën nay nañ dem waa ñoom ñi ngi ci biti déedéet dañ génn fii yëpp kay ñi ngi ci biti dañu ah, génn ah dem nañu dañu génn wala nga xaar ma génn waaw kay moo gën ñoom ñëpp génn. ña nga ca ñoom ñëpp génn. jërëjëf kon nag defal ñaan ñu tëj émission bi. innama amruhu izaa araada shay'an an yaqula lahu kun fa subhaana llazii biyadihi malakut kulli shay'in. suñu borom def fi jàmm bu baax. amiin yaa rabbi kontaan nañ bu baax jërëjëf. jërëjëf kon nag gars yi Jojo et ses noonu ñu jox leen rendez-vous très bientôt incha allah rabbi